benn def la man jàpp naa ne setalul wér euh, euh, euh, setalul waaye aussi chargé wul dama bëgg équitable kon gis nga ne ñett yi mu doon wax dañ ko soppi ci PV bi dara soppeeku ci waaye dafa am lu mu leen waxul léegi bi may commencé lire PV bi leen Ousmane ko wax man PV Ousmane Sonko laay wax ba léegi de waxuma bi nekk ci dossier bi kii bi mu nee benn concernant les déclarations de Adji de la victime madame déclaration Adji Sarr bi mu ne dafa am ay contradiction dafa ni ci côté Adji li mo ci euh, ci déclaration Adji li mo ci contradiction moy ñatt yi ma leen won Ousmane Sonko ni won daf koy sétal won na leen ñaar yi mi ngi ci benn bi daf koy taxal mais yamul foofu waji dañi ñaar ci côté Ousmane Sonko nak amna tam yu xawa a doy waar daal di wax juroom benn affaire juróom-benn affaire yi mu wax ñeenti yi moom gis nañ ko fee moom ci PV procès verbal bi nga moom la maa xam jàll yoon maanaam juróom ñeent yi ñu jàpp ni moom dafay dafa xaw a doy waar ci côté Ousmane Sonko mi ngi fee mais dafa am ñaar yoo xam ne ni ci côté Ousmane Sonko la ko capitaine Touré defoon yooyu nekkul ci PVB dañ na kon boobu amee complot xanaa Ousmane moomu complot fexe ba lii gën parce que ñaar yi ñu dindi te newul fee te nekk ci PV bi Ousmane Sonko wax te liiru xam naa na ko liir mais euh, yaakaar naa du ko mas a liir ci seen kanam ñaar yooyu ñaar yu ñàngal ñaar yu doy waar lañ ko ci waxal fii dañoo wax ne Adji Sarr am na ñett yu doy waar ñu ne Ousmane Sonko am na juróom-benn yu doy waar juróom-benn yi ñaar yi nekkoon ci suuf nga xam ne dafa tàng jër ci sama xalaat waaye dugalu ko nag ndax waxi gendarme loolu loolu dañ na new ci. kon moo tax commandant bi bu muy corriger su fekkoon lor Ousmane Sonko moo tax kon li la ci def li ni ci souf na len ko Ousmane Sonko jox mais comme bima ñew dama dama cohérent dama len dama def tout pour expliquer rek mu leer mais nek nekkuma fi di chargé man ni c'est pas un problème man lima intéressant rek moy nee yi koy sétal genn nañ ko wonna len li koy sétal ma nga ko lii nga xamni gendarme ñom dañu dañoo day duggal Ousmane Sonko mu yaakaar xarta xaritam boobu bindu ko ci muy capitaine Touré wala ki capitaine Touré jox mbiru xaritam boobu moo ko bindal juróom-benn yii te boo ko liiree bu baax ba génne ko ci Sénégal soo moytul li nga changé xarit waaye yor nga ko liir ko non ñu ngi naan liiral non du ko liir non bàyyil noonu xam nga il faut ñu déggoo ci dara li Ousmane Sonko wax ni man li koy setal dama koo génne man loolu moom fi loolu laay leeral mais lii dugal Ousmane Sonko te Ousmane Sonko tudd ko moom tudd ko baal naa ko dama ko tudd bu leen sonal seen bopp non dama préparé lii de euh, euh, non euh, point de presse bi dama ko préparé ba yow ba mu leer leen du ma ko wax fi ne non bu leen sonal seen waaw jàll leen xam nga Ousmane Sonko dina ko génne leneen la si des photo yi nañ ci ñëw photo ñetteel bi la bu leen yàkkamti bu leen yàkkamti étape par étape la nekk pour le moment daf ni Serigne Bassirou Gueye dafa falsifier procès verbal bi loolu complot la nit ko falsifier mooy dafa am lu ko doon setal ma dindi ko naa leen ni leen waaw setal naa sama bopp wan naa leen man du ma setal sama bopp parce que taxaluma mais wan naa leen loolu amul nee naa leen ñett si mu wax nii dama ko génne benn bi xam naa da bi mooy li mu wax ni Adji Sarr message bi ñu ko bind ne ko Ousmane Sonko mi ngi ñëw loolu genre enquêteur bi daf ne lu doy waar la Ousmane Sonko ne wax dëgg dëgg yàlla loolu daf may setal ma ne loolu mi ngi fii dañul bu ngeen demee ci PV dañul li may wax nii dama ni c'est un fonctionnaire moo jàkkaarloo génn ku assermenté maa li leen dañul parce que bu ngeen demee bis ba xool ne aji Sarr fi muy waxee ci SMS bi newu fa te lool dina mas a leer ndax dossier public la bu boobaa dootuma wax a yéen parce que du ngeen ma respecté du ma fooy sama bopp man ñaareel bi mooy wéetal bi leen ay sata wéetal nee na loolu daf koy setal te dama ko génne non mi ngi ci loolu tam agent assermenté ma ko mi ngi ci ñetteel bi mu ni Sidi Mouhamed mbay daf ko setal ma won leen ni leen Sidi boobu dama leen koo liiral parce que comme comme Ousmane Sonko liiru ko dama da koo liir ba ci digg mu dagg ko parce que arrangé wu ko ma liiral leen ko ba mu mat ni Ousmane ni Mbaye daf nii moom ci suite ba lay seete Ousmane Sonko wax naa Adji Sarr na wut ay preuve te bi Ousmane Sonko ñëwee Adji Sarr fexe na ko wéet ak moom may loolu day dugal Ousmane Sonko setalu ko man leen na lu fi loo xam ne ne dañ ko wax ni mom luy duggal lu ci ci lu xawa compliqué la ci domaine Ousmane Sall euh, Ousmane euh, Ousmane Sonko man waxuma deug la waxuma du deug mais dama ne moom liiru ko ta di ngeen ko lire comme et puis euh, lu ci bari sax bu ngeen jëloon sen sen ba def conférence de presse ngeen agrandir ko cliquer ci dessus man ngeen ko traiter ba mu génn ngeen lire lolu loolu yomb na voilà merci. <laughs> kon lolu moy ci wàllu modification xam nga léegi bi may wax ci naan Ousmane daf ma complot euh, non li ma bëgg wax mooy Ousmane daf bi ñu ko laajee ni ko foo jële lool daf na ci rapport interne gendarmerie boobu dama cee bëgg a taxawaat nag parce que bu fekkee xamuloon ni yoon di doxee dafa am loo xam ne da nga koy jox fulla ak fayda te amu dafa mel ni dossier bi rapport international dañ am solo parce que effectivement Ousmane Sonko moko amal solo mais yeen xalat len ndax amna solo rapport interne bi tay ko wo ci Sénégal ne ko lu nek ci rapport interne bi lim lay wax moy rapport interne bi dañuy Serigne Bassirou Gueye ak général Moussa Fall dañu complot wamé enquête interne bobu loolu tax won juk capitaine Touré lañ doon enquête tay amul koy laaj bam le no rapport boobu moy bi ñoon enquête a dañu rapport boobu kay moy bi Serigne Bassirou defé grawal yi mo général Moussa Fall te pourtant tax juk te rapport boobu dégluwuñu dégluwuñu Moussa Fall kon rapport boobu ban njariñ la bu fekkee rapport bi am na ci seen i seen i seen wax kon li may euh, fàttali nag ci rapport internet bi tam parce que pour bu génnee génn tel ko préparé mooy du ay gendarme ñoo ma accusé de ci affaire falsification dedet gendarme dañ ni man ma len tek pression lolou mom defe naa ñaar u ñetti gendarme moom ci waxi ci waxi Ousmane Sonko wax nañu waye ci falsifier bi ñu wax ben nit moko wax moy capitaine Touré bi nga xam ne wax naa leen ne normalement nit ku sérieux waru jël ay waxam en compte capitaine Touré moko wax bi mu ko waxee commandant bay weddi na ko comme té nañ sa rapport dana genn man dama xamul sax rapport boobu wa lutax du genn rapport lu té Ousmane Sonko genné ko lan mo ci neub am na koo xam ni Pape Alé Niang la tudd liir na rapport bi li ci ëpp liir na ko ba mu des xëy na bi mu ñëwee ci commandant Mbengue am na lu Mbengue wax lu ma seetal loo xam ne liiralu ko am na fu Mbengue waxi remarque yokk na ko pour charger ma mais bu paasee loolu mais liir na PV bi li ci ëpp Ousmane Sonko ci boppam PV bi yóbbu na ko Cour suprême yóbbu na ko ci doyen des juges yóbbu na ko inspection générale de l'administration de la justice wax na ceeg yéen waa léegi lu muy nëbb ci PV maa ngi défier Ousmane Sonko Ousmane Sonko nag rapport quelle date mais vous allez poser la question après c'est le minimum de courtoisie qu'on va avoir dans un point de presse donc Ousmane Sonko na génne procès verbal bi enquête bi gendarmerie def na ko génne bu ko génnee di ngeen gis ni capitaine Touré moo accusé fait wet